tey junior lépp jàmm tawféex kay naka yaram bi waaw lépp tawféex yaa ngi pare nga bu doon suba bu doon suba weex bu neex na xam nga ki nga war a bëreel ñu tuddee ko le professeur de Lansar nangul nañ ko lépp mais xale lay bëreel da bëgg a wax ne nangul nañ ko lépp xale lay bëreel loo bëgga wax wax dégguma de wax ju yegg ma ni la wax ju yegg dafa ko moom mu nangul nañ ko lépp lu mu mën mais xale lay bëreel xale bu soxla mais mag mu mag mu yor ay ngelaju la le 19 soreetul le 19 soreetul. loo ko dencal. jàmm rek laa ko dencal ndax grand bu kuul la jàpp ko rek daan ko waaw loolu kese. xam nga fi la combat bi mën a yóbbu est-ce que. moo tax ñu fonk ko ak samay mbokk ak samay xarit ak samay ànd jàmm ak waa yëmbal yëpp fonk combat bi xam nañ combat fu ma war a fu mu war a mën a yóbbu. lan la la jaral. lépp miraas sama bopp miraas sama bopp loolu la ma jaral te si kàttanu yàlla le 19 suñu borom dina ma may ndam incha allahu rabbi incha allahu rabbi waaw. mais mais dafa mel ni seen naa Tidiane nii ci gannaaw yaa ngi koy seen may ma sa waay bul ko ma yàqal sama job waay yaa ngi seen yaa ngi seen mais mais mais mais bëgg naa nga wax ma combat bi Aliou Seye. combat bi ci lu muy jeexee. loo koy andil xeex wala bëre. mun naa jeexee ci lépp door la lañu wax bëre dóor lañu wax. kon dóor nga koy andil. mun mun naa jeexee ci lépp. maa ngi ci ginnaaw grand yi rek waaye kii waalo waaw. ayca kaay kaay ñu jege Aliou Seye ñu jege Tidiane Faye la professeur de Lansar champion maximum de respect. jaar nañ naka waa. baa am nga jàmm. waaw sant yàlla bu alhamdulilah. loo yëg ci yaram bi fi mu toll nii. sant rek ak Xasan. mais mais mais dégg Aliou Seye nee na ma moom xale la te yow mag nga. Mhm. loo koy tontu. non loolu du tontu 19 yàgg la 19 yàggatul loolu laaj tontu. mais daf la joxar bi baaroom. Ah, dama ko laaj. mu ne ma ki may bëreel. Mhm. mag la te man xale laa maa ko gën a bëgg combat. waaw loolu moo tax ma ne jarut yàq yàkkamti comme le le 19 la. tungu na teew incha ko ciy tontu. non du ma ko tontu dara nañ bàyyi bu bis ba ñun ku ne xamee xamee wax kenn xamee wu wax wax ju bëri moom moo toll si wax ñun dépassé nañu wax ñun si jëf lañ toll. si jëf nga toll. Mhm. loolu a jëf incha le 19. ñu ñaan daal yàlla may ñu ndam waaye saa nañu waaj lépp incha allah rabi ñaan daal ñu may ñu ay na xam ne am na combat mais est xam nga ko bu baax moom xale bi est-ce que xam nga xale. loolu moom wax dëgg yàlla sama ginnaaw laa ko teg man du seet mbër mi lam lam andi de man li ma andi rek la. buy bëreeg yow bu jàppee sa tànk boo yaakaar ne ci ba lay liggéey mën naa daw jargandelu wër la ndombo wala mu dëj la est que yooyu yooyu yooyu mi ngi fi ba léegi Tidiane. na xaar lépp rek lépp fi. yooyu ngi fi ba léegi. lépp na xaar lépp lépp ngi fi. le 19 looy wax amateur yi. ñu waaj ñëw serpilay rek ñaan yàlla may ñu ndam te ñu commencé bisimilah rahmaani te génn ci alhamdulilah li nga xam ne moom la promoteur yi bëgg tamit yàlla ko suñu borom defal parce que lii dafa jafe mhm. jeexe wala bëre. ñu waaj waaj nañ lépp ñun bu doon suba sax ni pare nañ yàlla xam na ko. xeex lay doon wala bëre la. dégg may la bu doon dara lépp pare nañ ko lépp kenn du dem kenn kenn dem ak guerre di wane sa arme. lu mu andi nga dugg ci. ba dañ ciy takk ba niin. jeex na tàkk.